asalaamaaleykum waa Géejawaay maa ngi leen di nuyu di leen gërëm yéen ñëpp ci seen teewaay di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxo Alboury Gueye bi nga xam ni moom mooy coordonnateur convergence initiative républicaine su ma ko tegee ci loxoom nag mel na ni wax naa ñëpp gis naa ñëpp waa Syrie yëpp maa ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm di. gërëm aussi le coordonnateur de la à au Gabon monsieur Sall bi nga xam ne ñëw na tey fii wax diñ fi wax yépp dégg naa ko te maa ngi leen ci gërëm di leen ci sant waaye aussi di leen wax ni nangul naa leen tànn di ngeen ma tànn Alboury gars yi li may bañ rek wax naa la ko loolu c'est valable pour tout bu yeboo gars yi ñëw yéeg ci siir bi yéeg ci terrain bi balaa mu leen raw ndax bu ëllëgee damaa bëgg a gis maire bi damaa soxla maire bi mu tëla loolu bañ la dal bu yebu léeg bu yebu yéeg léegi ndax terrain bi dina dem te dara du ko téye maa ngi leen di gërëm ci choix bi nga xamante ni porté ngeen ko ci sama jëmm ju xeebu ji Albouri ni ko waxee léegi dëgg la choix bi dara gidéew ko lu dul xel ak raison ndax ñun dañuy politique bi ñu jàppee yëf yi xol xel la ñuy jiital ba pare xool candidat ba nga xamante ni moom moo gën a jekku yëf yi moom moo gën a taxaw pour jox ndam li président de la république même sax bu dee ni ndam benn nit mënu ko may boppam booloo la ñuy wax boole suñuy doolee ku nekk indi la nga mën ñu jox ndam li président de la république te jàpp naa ni wax dëgg yàlla saabu du fóot boppam waaye su ko mënee war na koo mën a wax Golf Sud maa ko gën a jekku ñëpp maire Golf Sud ñun laaj ñu ko pour nekk maire déedéet dañu ko laaj pour fas yéene liggéeyal Golf Sud dañ ko laaj pour fas yéene am commune bu bees te ci biir loolu dese nañu lu mot juróom benn weer rek rek rek rek pour ñu am commune bu bees juróom benn weer pour ñu am commune boo xam ne am na ordre benn weer ñu am commune boo xamante ni day dimbali ndaw ñi juróom benn weer pour ñu am commune boo xam ne day def social lu bëree bëri jàppale doomu aadama yi juróom benn weer pour commune boo xamante ni taataa yeeg ak problème mu assainissement yi dafay jógee juróom benn weer pour poste de santé yi ñu jox leen ay médicament jox leen ay jumtukaay jigéen ñi mën a wasin dans bon bonnes conditions ñu leen di faj dans de bonnes conditions. juróom benn weer pour ñu am ay école yoo xamante ni suñu doom yi mën nañ ci jàng dans de bonnes conditions lii ma wax buñ ma joxee mairie bi su ma ko mënulee am naa fu lay bàyyi ndax yéen gënu leen ma man gënuma leen te ay nawla lañ dama ba wax foofu rek ne choix bi ngeen joxar bi ci sama jëmm ji mooy choix bu baax bi te wax dëgg yàlla nag Alboury waa siir woo leen gaa yi ñu dugg ci train siir bii ndax balaa yëfi di leen raw parce que nag Golf Sud doom élection de dama leen di wax léegi Golf Sud doom élection bu siir taxawee réew mi taxaw Pa Amadou Fall taxaw bu Aliou Sall taxaw. wallaahi. ani ani beneen candidat dafa amati. diaspora bi ñëw. diaspora bi ñëw. waaw amatul. donc élection yooyu gagné nañ ko ba pare li ci des mooy sécuriser ko. ci beneen wàll bi ci beneen wàll bi xawma fan moom la ñuy wax mais du Golf Sud beneen wàll bi mooy yeneen communes yi xanaa wala ak ville bi ñun loolu la ñuy dem lijjanti. te ville bi sama position xam ngeen ko man du ma ko laam-laamee wax naa ko benn yoon jeex na dinaa ci def lu ma mën te danaa ko def ni man maay candidat bi ndax bugguma ànd ak nit muy per te bugguma tamit injustice bugguma kuy teg dara nit loo xamante ni waroo ko ko teg moo tax man ma leen di wax nii na ngeen wax Aliou wax naa ko ko xam na ko moom na dalal xelam na tëdd nelaw xeex bi man maa koy porte te mën naa ko dama bëgg loolu yëpp ñu jàpp ci te Alboury wax ko léegi man cinq communes yëpp mën naa fa teg candidat li ma am ci cinq communes yëpp bu ma ko tegee man Aliou Sall teg lu mu yor Benno Bokk Yaakaar teg lu mu yor je pense que di toogaatam ci ville bi mën naa bañ a jafe parce que mbooloo mooy doole candidature bii ngeen yëkkati damay bëgg ñuy préciser du contre kenn dañu nekk ci parti ku nekk am nga droit sañ wax yëkkati sa baat ne lii nga bëgg ba keroog instance su parti di décider lépp rafet dara bañ a ñaaw parce que tout ou tard on va se retrouver nañ ànd nekk benn yëkkati dóorandoo jox ndam li président de la république. donc loolu laa bëggoon am lu ma leen di wax di leen wax ni siir maa ngi seen gannaaw maa ngi seen kanam maa ngi seen ndeyjoor maa ngi seen càmmoñ waaye maa ngi seen kaw. foo leen ma ma fekk leen fa loo leen ma loo leen bëgg ma jàppale leen ci pour que. au mois de janvier ñu jox ndam li président de la république fii ci Guédiawaye day mel ni man à parti d'aujourd'hui Golf Sud dama koy jëlale man xam naa ni Golf Sud combat amu fa gars Golf Sud amul combat natt naa ko ba natt ko mais foofu daal wóoral moo fa nekk sécurisé mais combat amatu fa sunu doole sunu force yi nan ko def Golf Sud de waaye nan ko def ci ville ba ak yeneen commune bi foofu la wax ji nekk maa ngi leen di wax ni kontaan na encore une fois di remercier responsable yi ma fekk yëpp di gërëm waa Sire di leen wax ni en route vers la mairie ci kanam ci kanam incha allah jërëjëf. sababu ndaje tey bi mooy euh, Sire benn plateforme la boo xamante ni ay jeunes la ñu nekk ci parti bi ñun ñëpp ñu nekkoon COJER tey ñu jàpp ni am nañ plus de trente cinq ans ñu génn créer benn plateforme. dugg ci gox bi gox-goxaat yëpp kër par kër waxtaan ak nit ñi ñu ne ñu ci élection locale yi jàpp nañ ni ki nga xam ni moom bëgg nañ ko pour mu jël la mairie de Golf Sud c'est Lat Diop bi ñu déggee loolu ñu dem woo suñu responsable yëpp woo kilifa yëpp waxtaan ak ñoom ne leen nag tey dañuy ñëw pour investir le candidat Lat Diop pour la mairie de Golf Sud mais monsieur Aliou Sall pour la mairie de la ville de Guédiawaye ci loolu nag. ci loolu nga xamante ni def na lu tax ñu def ko parce que dañu jàpp ni bu dee am na responsable à part Aliou Sall parce que Aliou Sall nag c'est de la ville à part Aliou Sall su amee benn responsable boo xam ni commune boo dem Gounass Ndiarème Wakhinane Golf Sud Sam Notaire benn responsable ngay gis foo xamante ni fu ne zone yooyu bu demee moom mën na fa samp candidat biir Golf Sud unité 1 ba unité 6 Fignes bi Las Palmas golfe sud nga jël enseignant littoral bi yëpp Lat Diop rek ngay dem koo xam ne da ngay gis des personnes ay nit ñoo xamante ne nañ ñoom Lat Diop mooy seen mooy seen kilifa ci politique ñu ni nag loolu su dee ñun ñëpp gis nañ ko mais ñun ñi nga xam ne nekk nañ ay jeunes dañuy bàyyi suñu ambition yëpp ñëw ànd ak moom mais ànd boobu aussi li koy li koy li koy li koy gën a may doole mooy président de la république déglu déglu responsable yi nekk ci zone parce que je pense que moom am na ay am na ay information yu leer mais ñun ñu nekk ci zone bi aussi am nañ information yoo xam ne moom mën na am amu ko moo tax ñu koy ñaan mu jël candidat boobu noonu mu jiite liste coalition Benno Bokk Yaakaar pour bu ñu demee élection ñu bañ a am benn jafe-jafe voilà Lat Diop bu ñu ko choisir loolu dong tax ñu choisir ko bañaluñ kenn nag candidature am mais ñu ñëpp noonu ay candidat lañ dañ leen ñaan ñu ñëw ànd bu ñu àndeek ak ñun dañuy gagné bu ñu gañee aussi bu ñuy gérer mairie bi aussi ñun ñëpp ciy ñëw jàpp te lépp pour benn intérêt muy Macky Sall am ndam parce que ñun ñëpp Macky Sall la ñuy liggéeyal moom lañ bëgg mu am ndam donc jàpp naa ni que ñu war a jiital dafa nekk koo xamante ni consensus lay am. ñëpp dañuy ànd ak moom ñëpp dañuy d'accord moo tax ñuy woo ñi nga xam ne nekk ñu fi tey te suñu liggéey day nekk ci continuer dem ci waxtaan ak ñooñu pour ñooñu ñëpp ànd ak ñun pour bu ñu demee campagne def campagne bu yomb le mille vingt 2022 ñu élire suñu maire Golf Sud muy Lat Diop mais suñu maire mairie de la ville muy le maire Aliou Sall